internet du seeni nopp ma dég li si yéenekaay yi Le Quotidien la ñu koy dooree ak coowal financement parti politique yi yéenekaay bi ne sous commission bu dialogue politique bi ànd nañu ñu andi ci ñetteelu xëtam li mu tuddee PCE di bàkkaaru Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky ñeel financement parti politique yi Dakar Times di ko ca feelu ndax fësal na ni parti yépp jalgati luwaa bi ndax kenn nanguwu cee fësal koppar gi nga xam ni moom ngay am at wu ne Vox gën a wëy Ibrahima Sène ci yéenekaay bi ne xaalis boobu xel dalu ca Abdoulaye Wilane bu parti socialiste teg ca ni nee coow li prétexte rekk la ngir valider financement bu fi amoon ba pare amaana nag dëppawul ak yoon Moustapha Diakhaté di sàkku loi boo xam ne rek bu am doole lay doon jëm ci financement parti politique yooyu waaye taxawu Sénégal moom li muy rekk mooy bëgg a dékkal benn loi ngir rekk tas benn parti ba tax l'observateur ne Antoine gi dañu koo joxoñ baaraam dañu rek njiitu réew mi lay xeexal ndax gannaaw Karim Wade ak Khalifa Sall Sonko lay seet ni mu ko yàqee ba tax rek ñi fare ku jege woote mbooloo rek ngir bañal ko poste ministre de l'intérieur am enquête dolli ci ni Antoine Diome mi ñu tabb jëwriñ bi gàllo wàllu ko biir réew mi moo ngi ci politique bi ndax moom mi nga xam ne nag mooy magistrat bu njëkk bi ñu tabb ci poste boobu toppul tànku généraux yi nga xam ni ñoom ñoo ko fi jiitu woon waaye tànku politiciens yi la daal di jël Jean Louis Correa di jàngalekat ci wàllu bi bi gën mooy gi jafe-jafe yépp l'évidence dolli ci ni coow li am li ñu ne rek dañuy tas parti Pastef Antoine Diome dugal na Macky Sall ci guuta waaye ak lu mu ci mënti doon rek bu ñu sukkandikoo ci le témoin quotidien Macky Sall mooy agent marketing bu Ousmane Sonko ndax ba tey jógul rek ci di gën fësal njiital parti bu Pastef boobu Ousmane Sonko yëkkati ay kàddu rek ci journal bi ne bu kenn jéem bàyyi loo seen loxo ba tax muy dànkaafu Macky Sall ak i farandoowam askan wi réew mi quotidien fësalu ni rek Macky Sall ak waa ku ci xale la ñu nekk Alioune Tine ak Khalifa Sall li ñu bëgg rek mooy waxtaan bu réew mi yépp di bokk waaye Le Soleil fësal na waxtaan bi mu seexoon ak Ségolène Royal li mu xam xamle rek mooy njiitu réew mi i Sall jàmm la bëgg te it ci lay dox mu dekk ni kilifa bu mag la te it nag njiit boo xam ni bu mu am yaakaar ci moom la ñu jàll ci laajte bi ne yéenekaay bi di ñu xibaar ni rek Idrissa Seck moo ngi wéy di xeex ki fi nekkoon rek njiital le conseil économique social et environnemental di Mimi di téye ba tax liggéeykat yi nga xam ne nag ñoom ñoo fay liggéeyee ñuy daal di yuuxu wàllu si du ko di jeex ci gox yeeg goxaat yi ak lu ñeen liggéeyu ko ndox bu sedd la te set bi ñu ne rek dañu ko faa war a def yéenekaay bi ne loolee coppite bu ànd ak junney jafe-jafe la laata bi na ñëwaat rek ci coowal ARTP ak kërul tasum xibaar yi li mu xam ne rek mooy gannaaw des médias ñaari milliards ak trois ci kopparu CFA la ARTP di laaj waa Excaf Télécom i nopp ba ëllëg incha allah